ci ndigalu Serigne Sidil Maxtar Mbacke xalif général des Mourides yàlla dafa yàgg lool te ànd ak wér Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Souhaïbou xalifa Serigne Souhaïbou Mbacke Xaadimu Rasuul ak njabootuk Serigne Souhaïbou yëpp ñoo am mbégte di yëgle bésu màggal Serigne Souhaïbou Mbacke Xaadimu Rasuul bi ñuy amal at mu nekk ci juróomeelu fanu koor gi mu war a dëppoo ak àllarba fanweeri fan ak benn ci weeru mai wala alxemes benn fan ci weeru juin 2017 ci Touba bés bi nag di ñu jiital ci njàngum alxuraanul karim ak i xasida Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Souhaïbou ak i rakam yi jàngkatu xasaay di ci woo mboolem ñi ñu bokkal maam maaram ñi ñu bokkal Serigne Touba mboolem këru diine yi mboolem taalibe yi rawatina jullit yi wëllarante woon ak Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimul Sol juróomeel bi fan ci weeru koor fa Touba Daaru Xuddoos bu nu xëyee ba tàkkusaan jàngub alxuraan ak i xasida tàkkusaan ba timis ñu dalal gan yi ay borom xam-xam waxtaani dund Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimul Sol muy yóbbal bi ñu ñaanal taalibe yi yewi مكرما بخير الطاعات والسدد